bokk na ci xibaaru marax gi liggéeykatu Veolia ñu ne ñoom ñoo lànk duñu soobu nag ci grève bi nga xamante ne Madani Si ak i ñooñam ñu ngi koy woote mu jëm ci ramassage yu ordures ci Ndakaaru ñoom ne nañ ay mbébétu Madani Si Madani Si dong la soxal ñoom seen yoon nekku ca ndaxte ay retard ci wàllu paiement yàgg nañ koo gis ci seen secteur te kenn musul jóg ne daf koy lijjanti Fatou Bintou Konté ak Ibou Cissé liggéeykat yi nga xam ne ñoom ñooy xëy fee nga xam ne moom mooy entreprise bi ñuy wax Veolia ñoom bokkuñu ci grève bi nga xam ne Madani si woote na ko ñoom ñi nga xam ne nag ñoom ñooy tonni mbalit ci dakaar Plateau ak ca jàpp nañu ne argument bi nga xam ne Madani si moom la joxe ñoom yitteelu leen na. kon dañu démarqué wu si loolu parce que loolu ñun concerné wuñu li tax ma ne concerné wuñu mooy ñun weer bi passé ñi ngi fayeeku la kenn déggul kenn ko wax weer bi tey la jot ñu jóg di wax. depuis bu ñu nee mbalit dañ koy transféré jëlee ko UCG yóbbu ko Antan Karakar ku ci nekk mi ngi jóg di wut positionnement ñun wutuñu positionnement tey wutuñu positionnement suba. du ñu dem grève parce que problème mu muy évoqué problème salaire taxuñoo jóg ñun dañoo am préavis de grève boo xam dañ ko déposé. ñoom liggéeykat yooyu xam xamee nañu nii tegoon nañu fi ab benn préavis de grève ngir seen plateforme revendicative bi nga xam ne ñoom ña ngi koy xeex ngir ñu lijjanti ko te dañuy xaar préavis boobu jeex ngir ñu mënu soobu ci grève ndax ñoom jàpp nañu ne plateforme boobu ba tey moom moo taxaw. ñun ñu dem ci autorité compétente yi ñu déposer boobu préavis de grève à savoir ministre de la collectivité des collectivités locales dem déposer ko maire de Dakar déposer ko suñu direction am plateforme revendicative. boo xam ne képp kuy liggéey ci mbalit tey yow la concerné ñu teg plateforme boobu plateforme boobu mu ngi ñëw à date échue le 21 octobre gis ñu ndax lu war a tey ñuy dem grève en plus li gën a garaaw mooy ñoom ñëpp moom mi déclaré grève bi xam na ni dinañ ñu fay dans 48 heures parce que am na information yi ndax directeur wax mais li mu doon def mooy protéger boppam ak protéger directeur bi nga xam ne tey dañu leen defal ay avantages yoo xam ne ñoom ñoo ko am. ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci mbalit mi te bokk ci Veolia jàpp nañu ne secteur mbalit mi jamono ji dañ ko war a renouveler ndax ku ci nekk yaa ngay def li la neex ngir sa poos. li ñu bëgg mooy suñu jógee fii comme nañ ko waxee woon mooy secteur du nettoiement dellu place am dama ci dolli leneen su ministre bi jógee tey ak président ak premier ministre ba ne dëkk bi dafa salté alors que am na benn structure boo xam ne tey mi ngi fii di liggéey ñuy dem di jël ay journaliers di leen fay 3000 pour ñu légal ko mu ne ni tey ñi ñu fi teg bon ils ont failli à leur mission donc amatuñ fi place léegi nag par par la boobu ak xaritoo boobu ak relation syndicale yooyu lañ bëgg mu deñ fi rupture la ñu wax. ñoom travailleur Veolia yi nag jamono ji delluwaat nañu ci seen liggéey ndax jàpp nañu ne grève yooyu amul benn solo te liggéey Ndakaaru rek a leen tax a